le zoi nena le zwaul nasabigi kumafalo Nigel Fall góor faal may sa bige kumba faal jambarooy ndigal may sa bige kumba faal jambarooy ndigal may sa bige kumba faal njarama xoli ba booyi góor faal malay woo faal may sa bige kumba faal nee na lees ooy nee na lees wawul ስለጊስሬግኒ ዋው ጊስተማ ወረዴር dégg dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw a gëw gooy lees ooy ni na lees waxul njaarama ligal bàyyi góor njaarama yooy jàmbaar bi faal jambaro ni la konti melbal jambaro ni la konti melbal góor bu doone baayam tumaam waj na baal may sa bige kumba fal yay setu ibra bol may sa bige kumba fal sama ibra fal a feeñal mahamadu bamba jambaro ni galval, nena le zoi, nena le.

borom faraati janjandeen da ba maam say njaay Bamba samama maama Bamba samama maama Bamba siya bàyyi gorma may kumbaval, samama Kumba Bamba siya bàyyi gorma ma degen Demba Faal sa maama Bamba may sa bige Kumba Faal من الأطفال من الأول ولدك دالدكم ولا نكيسني واو كيس تبا وردير dégg dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw régg kaw kooy katu radio joko fm asalaamaaleykum wa rahmatullah seen émission jakarlo politique ni ñu tam diko def eh, dimanche bu jot ci rajo joko fm 87.7 bàyyi ko fii ci tengej sa puy mo nek ci waxkaay bi asan jour mo fare ci xarala gi di len gëm di len sant ci tewlu bi tay suñu gan di ab euh, responsable euh, politique euh, parti démocratique sénégalais ci gox bi nekk nekk secrétaire adjoint chargé de la propagande et de la mobilisation ci parti démocratique sénégalais ci seen bureau national nekk tamit responsable politique ci Rufisque Ouest waaye itam ci kàngamu parti bi fii ci goxub Tëngéej ci Maam Kumba Lamb xam naa sax dana si dellusiwaat ci yaatal. Ibrahima Cissé lay wuyoo fas yéene ànd ak moom ci laaj ak tontu ci li nga xam ne moo di tolluwaay bi ah, ci seen parti politique bi nga xam ne jamono bi ah, nemmeeku nañu ci ak euh, mbiccoog mballo ci seen biir ba sax léeg mu indi ak euh, jaxasoo ni ci di laaj ndax ñoom ñëpp ñoo far wala ah, dafa am loo xam ne moo leen boole te nag kilifa gi nekk ci digg bi nga xam ne moom mooy responsable moral bu parti bi ci biir gox bi mu mel ni am na ñoo xam ne daal dañuy def lu ci mel ni ak fronde loolu lépp dañ si dellu ci laaj ak tontu waaye moom ak taxawaayam ci biir parti bi ak yitteem naka noonu itam lépp loo xam ne bokk na ci actualité réew mi doxalinu réew mi yorinu réew mi ak nguur gi fi nekk loolu lépp dañu ko faram-fàcce si Cissé ñu ngi lay wax asalaamaaleykum. asalaamaaleykum salaam wa rahmatullah wa taala barkaatu. asalaamaaleykum mbokku auditeurs Jokko FM. asalaamaaleykum waa Sénégal waa diaspora ñi nga xam ne ñu ngi déglu si euh, internet bi ñu ngi koy suivre en direct. Ibrahima Cissé ñoom kontante euh, bi mooy euh, def naa ñaareelu yoon bi suma juumul euh, bi ñu ganesee bërëb bi ak léegi nga ñuy fekki si ci émission jàkkaarloo politique namoon nañ la. waaw mais maa ngi ci jàmm. waaw maa ngi si jàmm mais dama am naqar ndaxte benn rakku Ablaye Wade di doomu di doomu Ablaye Wade ma nekk si dëy moo lu ñuul mm-hmm. pour euh, marquer sama sama koy démocratique sénégalais doomu sénégal yépp ñu koy koy maître ablaye wat mm-hmm. euh, assemblée nationale ak euh, assemblée nationale bu CDAO, mm-hmm. di ko international libéral di ko jaale fédération ak fédération Sénégal yëpp. ndaxte euh, Ablaye fay nekkoon na nit bi nga xamante ne nii euh, ku liggéey sama formation politique la man personnellement ak leen nekkoon na un exemple bi nga xamante ne woon euh, jox nañu ju fulla ak fayda ak yenn yenn culture yi nga xamante ne nii de valeur yi nga xamante ne nii permettre nañu dégg ba xaalis ak gar. faalewuñu ko dañuy dem ak suñu fulax ak suñu fal dafay de ak suñu gëm-gëm gëm gëm-gëm bi nga xam ne Sénégal moo ñor gëm-gëm bi nga xamante ne suñuy waajur ak suñu njaboot moo ñu ñor ak suñu diine ak suñuy valeur ak démocratie bi nga xamante ne nii ab ni Ablaye Wade incarné ko naka si moom ak si ñun Ablaye Faye yàlla na ko yàlla yërëm xare ko ak àjjana maa ngi koy jaale maître Ablaye Wade. ñun tam ah, ci ah, sama baat ci turu également. Euh, ñi nga xam ne moo di direction bi ci bopp bi jamono bi du Diène ñu ngi koy jàll waa parti démocratique sénégalais di ko jàll également euh, doomu Sénégal yëpp rek noonu waa CEDEAO comme ni nga ko waxee ndax xam nañ ne jamono bu muy nekk député ma nga woon foofee euh, mhm. ci kuréelu CEDEAO ba boot député yi di également ku doon yëngatu lool sax ci lu ci bëri ci parti démocratique sénégalais ak ay responsabilités yu mu yoroon ci réew mi. Mhm. naan kilifa la ak mbooleem ñi nga xam ne. ay way daw làqu lañu di len ñaanal suñu borom aljana fi dawsi amin ya rabbal amin ya rabbal alamin te yexé njaboot yi fi dess te yagal sarax yi seen loxo def sutur ak barke ak wér ak le barke alxuraanu karim katun yalla yàlla ak amin alors euh, ibrahima hmm. euh, coow ciowli asan wolof day wax ne ciowli ci buntu buntu ten bi moy ñi amul baag sen parti jamono bi wa yeen tëngéej mom yéen parti démocratique sénégalais amko Andiko, andil Daouda andil frondeur andil Doudou Ndoye andil euh, Alioune Mar ma nga xamne sax aw saam ba pare coow li beuri lolou lu xew. voilà donc euh, euh, maa ngi nuyu ñep ah di len wax ne parti démocratique sénégalais ñuko xam xam nañ ne nous sommes un parti structuré à part le parti socialiste bi nga a un il est en lambeau le parti démocratique sénégalais qu'est-ce que gox bu nekk mu am fa ay structures yu taxaw bon euh, boo la si euh, commune bu le le département bu ne am fédération départementale am fa bureau am fa lu structuré boo demee si communes yi section bureau de section bien nga président la secrétaire général un bureau am structuré responsable des femmes responsable des jeunes donc parti bi structure la xam Il a un coordinateur coordinateur coordination le parti socialiste nous sommes xam parti socialiste ñi sommes sunu biir socialiste. di sommes ay coordinateur bu ñu une école de parti ramper dans le parti amuñu parasitage ñu indi ligne donc du des erreurs fondamentales. Euh, ñan je veux parler de mon oncle euh, Daouda Bien euh, bi nga ni j'ai beaucoup de respect envers lui j'ai beaucoup de respect avec ses fils dama ko jox cëru nijaay wante Daouda Niang nu mu taxawee si tëngéej nu muy les si n'est comment

mu que le maire mu que son adjoint ñu dans l'intérêt euh, administratif euh, si mairie donc moom Daouda vous bu demee kilifa bu toll non. mu xam parti bi vous m'ignorez, vous Boubacar Sall vous vous accueillir il a trouvé un parti organisé organisation parti adjoint président de la fédération bi Ibrahim Gagnon parce que c'était le passe. donc Lolo moo je tax être président de la fédération donc comme Al Sansen, nous sommes adjoint secrétaire général de la fédération top si le feu Khalifa Khouma le député mon compte président fédération parce que bi une soirée demain euh, premier adjoint c'était Khalifou Khalifa deuxième adjoint c'était al Sansen. donc bi soirée demain Khalifa Xuma moo automatiquement automatiquement bi Khalifa gagne, il y a le àjjana à Sène al jël donc man mii di wax ni si ne compte adjoint dit hmm. secrétaire fédéral mm-hmm. pas Dieye pas Paa Dieye adjoint de la mobilisation et de la propagande maa mm-hmm. nekkoon mm-hmm. donc bi Paa Dieye gaañoo mais d'office donc nous sommes un parti organisé je me rappelle bi Abdoulaye Wade bu ñu recevoir au ministère d'État fek mi nekkoon ministère euh, ministre d'État au président de la République à ngay dem euh, ñu may déglu donc bi ñu toogee à Samba Sambake dem na yalla na yàlla xare àjjana moom it. léegi ka mu nekkoon adjoint Samba Sambake ñu ne ko à une soirée mu ne tu es secrétaire général parce que parti bi non la organisé. Mhm. donc euh, comme euh, Daouda nya ñëw na jël na poste. mais pourquoi Daouda nya jël poste fédération ba paré section bu nekk mu am bureau mais section mu créé ay coordinateurs am teg ka fi jël coordinateur. yi ñu def en face avec les structures régulières donc ça c'est braver l'introduction l'organisation des statuts et règlements du parti donc le bon daawdi il y indi un mo indi jaxasoo mo indi rëbëjoo waaw ñun Nous, le bu Nous, on l'a demandé pour le président maître Abdallah m'a demandé de partir voir daawdi Je hmm? vais jël ay témoins jël l'endem bi ma demee secrétaire am du ma bàyyi ma fenn garde corps Ablaye Wade ñaari ma toppoon du ma bàyyi ma fenn ñaari mag yi ma jëloon tëngeej otaa duñ ma bàyyi ma fenn bi ma demee di ma wax secrétaire bi ne ko président Ablaye Wade moo demandé que ñu wax la ne la naa ñëw si yow pour nga recevoir ñu pour ñu mën a waxtaan pour def un front commun ma am yaakaar ne nag daaw dañaa si jëw boppam am na leneen lu muy liggéey

donc bu nekkee maire yàlla moo si teg loxoom si si si kattanu yàlla la donc bu ñëwee nekk maire ñépp toppoo ko mu jël ñi nga xamante ne ni nekkoon nañu au niveau du PDS jàppale ko xoolal le le frère abu Gueye nekkoon dans son mu jékki-jékki génn ko bureau bi indemnité yi mu koy jox joxatu ko nangu otoom te abu Gueye moo njëkk taxaw porter sa candidature. donc bu ñu demee ba dab ne ne moom si jëm boppam mi ngi may accuser man di liggéey keleen donc té mom si jëm bopam aduna xam na inspection d'État jaar na si mairie Tëngéej conclusion yi daw dañaa dama koy porter né jël conclusion yi que inspection d'État tek mu étaler ko génn ko ci journaliste yi yaakaar naa ne bu ko génnee ci journaliste yi dinañu xam lutax tax y a pas eu de poursuite donc cela veut dire. pardon ma je li may wax dafa am importance. ça veut non foofu laa non parce que je wax dafa importance trop. cela veut dire nous, Omar Sarr nous à à Macky Sall pour noyer les structures de base du parti démocratique sénégalais au niveau national non la daw de au niveau départemental de Rufisque pour noyauter les structures régulières du parti au profit pour répartir parti à parce que les structures régulières nous ñun xaalis yi yóbbu ñu ñun structures régulières yi amul lu parce que nous sommes des militants convaincus nous sommes des fils de maître Ablaye Et parce que loolu moo tax mu ne comme que léegi ñuy loolu ñii buñ leen fayee indi ñeneen ñi nga xamante ne xaalis yóbbu na leen dégg nga leneen donc parti bi dootul dox parti bi day fay ay c'est ça sa mission mu yor mu yor xaalisam nag direction du parti ku si nekk mu lay jox di la nampal ba jaaru mais ana preuve yi fii andiwuloo yoroo benn preuve li ngay wax ni euh, euh, euh, Ibrahima. dama ne dafa yomb quoi yaa ngi yaa ngi def ay accusations xam nga man accusation c'est des constats avérés la politique da ngay xool quelque chose nga constaté. mais loolu yow la engagé fi mu nekk nii. man je mais ça m'engage ça ça ça l'engage lui mais pourquoi daaw dañaa buñ ko waxee naka dajaleel sa njaboot yow a président njaboot bi nga mu bañ ko dajale. lu tax loolu moo tax dafa am mission beaucoup, beaucoup Sall pour nous divertir casser les structures de risque pour indi n'importe quoi. à mais kooku Ablaye Wade de Falco, Ablaye à la au niveau à la sphère nationale. Mhm. ñu fal ko jox responsable poste responsabilité bu mu yor mu yor euh, euh, euh, ndomb tank boobu ñew également rufis ki ñu naka yaay yaay kilifa gi ci département bi mais nga bëgg tok fi ne day liggéey pour Macky Sall. dama ne Omar Sar yoron na ndomb tank bu upp bosam. secrétaire to Omar Sar adjoint gis nañ do doon liggéeyal Macky Sall te Omar Sar man mi maa ko dénoncé comme Idrissa Seck comme ñeneen. yaaka la maa ko dénoncé au niveau du parti dans les panels. ni ki mi ngi liggéey ak ak avec. Ah, avec le les bi mag mon am doctorat politique bo fi da ngay man mi mara ndax ah bon et puis et puis l'intelligence ça, ah, c'est gérer la situation au moment opportun c'est de une visualité concrète et nette c'est ça l'intelligence ça, ah, mais c'est pas les diplômes. Voilà voilà. waaw mané mané diplôme buñ ko doon man. xam-xam. ndax borom diplôme pour def ay rapport rek la bind. mais borom xam-xam nag. borom xam-xam situation bu ñëw. borom xam-xam bu ñëw dina xam nu mu koy jaaree ba am si ndax. xam nga diplôme tam booy koy wuti dangay am xam-xam. non diplôme. li la. ma ne diplôme. Mhm. c'est pour des des rapport être secrétaire rapporteur c'est ça le diplôme. manam man diplôme mais Sénégal si xolé fi ñi fi am milliards tous nga diplôme xam-xam la démé dégg donc man politique amul lu mus jaxal bima xolé Idrissa ba pour tas parti man défier Idrissa Seck ba nit nit yi mën a am fit mën ko por por ndollu ba mbiram set leer dama ne daaw dañaa sunu suma nijaay la jox nañ ko cëru nijaay bu mu mat ndax nijaay la mais daaw yaa man damaa tooñ direction de parti toog yëpp mu wax ma li nga xam ne ne man Abou Gueye lu nekkul. mën naa la laaj. waaw Ibrahima. am na nee nga yow yaa dénoncé Omar Sarr. du dañ. yow yaa dénoncé Idrissa Seck. du dañ. waaw tey yaa ngi di ngat di dénoncé le maire Daouda Niang. parce que le maire waaw xaaral rek damay euh, lay déglu yow tam. waxal waxal ma déglu la déglu. waxal ma déglu la. alors est-ce que aussi. dans la même veine. ñoom waa Daouda Niang. amuñu également yekkin que ne. na nga doon gis di ko yëg ci ñoom ba tax nga di leen dénoncé.

Hmm. Daouda Niang sa physionomie caractère moom mooy tendance loolu la gëm ndax bu mu ñëwee tëngeej fii ñu ne ko ñëwal Boubacar indi ko dugal dugal ko si rang yi bi mu duggee si rang yi dafa créé tendance. yaa ngi accusé Daouda Niang rek nekkoon naa si tendance am man Daouda dañaa maa xeex présidence ba sama wag mbagg bi ñu wekk ko ba sa la amee man ak Alphonsine ak Demba ak ñeneen ak Matar Cissé. ñoo xeex ak jabaru jabaru Alioune marba ba Rokhaya Samb dégg nga ñoo xeex dégg nga buñu ñu jox ko gëddëm ba jox ko UCP mais UCP bi moo fa demee daaw di ñaag si ko doon liggéeyal kenn la fa jël. UCP union communale bu PS PDS. non union mooy union de coordination des marchés éducation waaw c'est de gérer des milliards. pour l'éducation mais ah, amul kenn ku mu si jël si ñun.

Idrissa Seck ooma ne ma comme que da ngay défendre daaw dañaa léegi man li ma doon jox dama koy dagg cinq cent mille francs yi ma ne ko dagg ko mais daaw dañaa biñ ko si joxee ma deux cent mille francs man la ma jox daaw dañaa ba mu nekkee maire ba léegi ñu jël ay contrat di jël ay embauché ñuy jël ba ñii nga xam ne ñoo bokk benn bokk yaakaar ñu bokk koñ sa coxo ñuy jël ay embauché yi nga xam ne moo leen jël te benn bokk yaakaar ay responsable yu mag lañu man mi nekk PDS joxuma contrat ma dara pendant sept ans du aide tabaski bi nga xam ne mën na ma ko jox ma jàppale ay militants du aide Korité bi nga xam ne mën na ma ko jox ma jàppale ay militants yow laajoo pour sa bopp da ngay laaj pour militants yi. mais bien sûr. man je suis pas parce que yéen politiciens da ngeen tàmm bu ngeen joxe ngeen def seen bopp fàtte ñi ngeen àndal ñàkk lekk sama bopp moo a tax ba léegi aw ma kër. ñàkk a lekk sama bopp moo tax sama xarit jëndal ma titre foncier cent cinquante mètres carrés sa jëm ñaajo jox ma ko ñàkk a lekkal sama bopp moo tax sama xarit dem jël ciment ak bërik birigal ma trois millions cinq cent teg ko fi ba léegi tabaxuma kër ndax lu ma am jox ko samay mbokk ak tëngeej waa tëngeej ñu may déglu laax fii laa juddoo sama maam saa xewer mbay moo fàq këri géej samp fay le premier habitant de Rufisque mu bi tubaab bi di def port bi mu taxu ñëw créer le premier village dënku mu jur maam Amagóor Mbay mu jur maam ay Mbay jur sama yaay sama maam moo sëñ Tëngéej donc man les valeurs du Rufisque. authentique dama koy téye maamu Ibrahima Cissé moo samp waaw waa hmm. Tëngéej ñu may déglu. non ñu ngi lay déglu saa xeer saa xewer mbay. Hmm. moo sanc kër géej moo jur maam Ayta jur bu jur sama yaay man maay borom Tëngéej donc du ma si biir Tëngéej.

Ça va ñëpp ñu ngi am R plus 1 R plus 2 man damay luwe ba léegi di parce que l'homme ma am pour Tëngéej na avec la population Tëngéej su ma sañoon Tëngéej jamaa lay nekk mais Tëngéej est mal entre est mal géré est mal géré par des gens yi nga xamante ni famille ak seen bopp la ñu xalaat xalaatuñu dëkk bi et bien que loolu ça doit cesser parce que Tëngéej ne mérite pas ça. loolu équipe bi fi nekk la wala ñii yor ay communes. ñi fi jaar ben Ndiawar Touré la fi gis yalla yalla yàlla yërëm xare ko àjjana il a fait des investissements yi nga xam ne comme ah, ah mais Ndiawar toutes les routes la route route biñu ñu fi defar yëpp Ndiawar Touré mo moko ko alimar avec les moyens qui peu les moyens qu'il a dégg nga tous les jeunes diplômés les 80% vingts pour cent de Rufisque dégg nga maam bu diplôme c'est grâce. ah Mar. yaa ngi tagg Alioune Mar de. te non non loolu. moom lañ lay moom lañ lay tame. ma ne ma Mar dégg nga. yaa ngi tagg Alioune Mar te moom lañ lay tame. dugg ma fii. Hmm. dama bëgg mu leer. na leer. ku gis fas naaru góor buy raw. nga ne naaru góor boo ko bëggee di ko sopp te te boo amee xaalis boo ko mën a jënd di nga ko jënd boo def ko sa fasu naaru góor c'est comme góor na ndoy

contracté yi gisuñu seen bopp aide yi gisuñu si seen bopp. mais ñooñu mooy ñan mooy yéen. mooy ñi fi ne tey mooy. papa non ñi si gisul seen bopp. mooy ñun ñun waa PDS. gisuñu ah, est-ce que du loolu moo tax ngeen di. waaw parce que boo gisee boo gisee. kon yéen da ngeen bëggoon ku leen jox. mais si parce que nous sommes des responsables. Hmm. ñu dëkk si ay gox. am ñi nga xamante ne nii dañu yaakaar si ñun ñu war leen jàppale mais boo jëlee say noonu waa benn bokk yaakaar ngeen bokk koñ. embauchement ak contrat ñu gis ne embauché nañ leen contrat ñu leen te daaw dañaa moo leen jël. yow nga nekk parti démocratique sénégalais qu'est-ce que tu veux. du ma ko ànd ak moom piglis bu bokk bokk ma fa man man Ibrahima Cissé. ah moo tax ngeen frondé. ma ne nous sommes dañu jë dañu radicalisé wu mais par front c'est lui moom mooy frond. te ñoom ne dégg naa ne sax ñoom génn nañ leen si parti bi. yéen ñi doon def front. écoutez yaakaar naa nit. Hmm. mën na ko génn. Hmm. te mu bokk secrétariat national.

jàppale leen bàyyi le sections régulières les responsables lii moom ma jot ak daaw ñaar du ma ànd ak moom doomam ñaan na ma ma bàyyi beneen doomam ñaan na ma bàyyi dem naa si moom recevoir moom il continue les mêmes actes man du ma taxaw daaw la ma ne waxtaan nañu une fois mais temps yi bi Abdoulaye waxee ba léegi waxtaan mu ne feebar bi la feebar bi nag écoutez ça passe les hommes demeurent ku war a dee dawee dee ku war a dee doo dee y a des mesures barrières léegi nag man def naa sama action ab Abdoulaye da ñaan na ma ay doom ñaan nañu man def naa man du ma seetaan ba daaw da ñaa man dama rendi politiquement ma te du ma fayu daaw da ñaa dama koy jàpp comme un adversaire politique qui veut me tuer et tuer le parti dans le fils alors man lan lan lañ la accuser yow à part parce que nag mënul ñu ñëw par le hasard des faits ma xool la ba mu neex la ma ne la Assane yow ndekete yow da nga nek fi di ma ruube te man gisuma dara lo def daaw da am na am na def lo xam daw da ñaa musuma ko wax lu bon pour la première fois ma yëkkati sama cadeau té moma togn wa ah, waa tuuma bi kon ci lan la parce que mo dem permanence nationale ah foofu la ñu la dingate ñu oté devant tout le presse man ma fébar dawma ñu nako il faut mu ut juboo nag nit surtout à l'ouest yaa yaa Ibrahima Cissé yaa Alsane Sène yaa yaa Abou Gueye mun a ñooñu du ma liggéey ñëw parce que dinañu liggéey ak nu mu tëddi Alioune Ba tooñ na jàmbur tooñ na ma. mais ni ngay waxee nii affaire bi métti na la ah. parce que man xaw may fen xaw ma sos xaw ma yàq dër nit te daaw dañaa jënd toujours donné un respect respect ndijaay laa xam laa xam sa jox mais dama tooñ parce que dafa wax lu nekkul si man c'est pas vrai amul. moom na wax waxam. na wax mooy na wax waxam ne man maa ñëw fekk structure régulière yi jël samay nit créer ay ay nit teg leen pour rendi structure pour rey parti bi. ñoom Issa Paye nan lañ nekk ay nitam. ma ne Issa Paye. par exemple la bu ko Issa Paye c'est un employé municipal. tey dans six mois bu daaw dañaa passé Ibrahima Cissé bu jaaroon tey bu toogee tey damay ramu y a des certains jobs yi nga xam ne amuñu valeur amuñu gëm-gëm. nit day am valeur am gëm-gëm. te Issa Paye si lui en question ma ne Issa Issa Paye si lui en question qui se casse derrière Karim rek pour écrire des choses contre ses propres frères. ah bon Karim rek il est lâche. c'est moi qui te dis. waay man maa il est lâche. parce que la lâcheté. mooy nit nga xam ne da ngay bind si deru nit. nga xam ne gëmoo ko boo gisee nit di ko ree fekk yaa ngi koy sosal di on doit être sérieux dans la vie même on doit être sérieux il y invité parce que comment ça pour moi, Karim rek la la Karim la c'est sa paix qui écrit l'autre moi sa le euh, scène, euh, euh, du il a il a le un signature du président de la République non non, non non non, non, non, na non, non, non il a dit. il a été accusé faux. Il a été accusé et condamné. Ah, et reconnu. mais c'est lui qui l'a fait. mais C'est ces gens de bandits comme ça, ces gens de, ces gens d'êtres humains, minables là, pour leurs intérêts, de notre poche. Beaucoup de 88 628 0013 lay doon inshallah ci kanam ñu tolloo ba des fukki simili ngeen euh, dugg ci euh, euh, rajo bi wax seen xalaat wala bon jàkkaarloo mbaa également encourager suñu gan Ibrahima Cissé la moom mi nga xam ne responsable politique la ci parti démocratique sénégalais ci biir réew mi naka noonu ci tëngëj goxu maam Kumba Lamb tey moo nora moo doon suñu gan ñuy waxtaan ak moom sànq ba léegi ci tolluwaay bi alors bu ñu génnee tuuti dañu dellu siwaat ci local bi ak waa parti démocratique sénégalais gaa ñi nee nañu Karim day ñëw. gaa ñu nañu dinañu voter euh, local yi en 2000 en 2022 janvier le 23 trois su ma juumul déglu ma tuuti. voilà gaa ñu nee nañu. Mhm. gaa ñu Karim bu dellu seewaatee té sa gaayé ko wax fii lañ tok moy ñi ngay xupp bu day jël réew mi est-ce que la question gëm nga les élections vont se tenir à date échue muy ben ndax dañ ko matale ci bëss ba wa également ci local yi ndax yéen wa parti démocratique sénégalais am ngeen yaakaar que ni mën ngeen am dara ci élection yi rawatina nak seen fauteuil de maire bi ngeen am ni en ville ngeen maintenir ko ba jël li nga xam modi les trois autres communes je parle d'abord dans l'office avant de parler du national. bon euh, euh, c'était bonne question donc euh, man sax euh, émission bi si question yi melni la laa euh, c'est malheureux que ma dugg si dans mon parti. non non c'était normal parce que yéna waral. c'était normal voilà donc voilà c'est ça donc demain ne. Macky Sall warul nax fowé bop sénégalais yi ndaxte ñi def politique xam politique xam élection xam rouage élection xam nañu né élection yi mënut nek en 2022. mille vingt deux ndaxte bu révision des listes électorales xool processus électoral xam nga né

en tant que superviseur politique <laughs> donc que ne ah audit bi def que donc rejoindre mais fichier président. mais le problème bi moi. référendum. non le problème nous sommes infiltrés au Sénégal par des corps étrangers. Hmm? yi nga des des ONG ils sont financés par les lobbies de góor et autres. Hmm? ñi ils sont financés par des grandes puissances. mais loolu xam nga c'est le système ñi nga xamante parce que suñu pétrole suñu gaz nous appuyons pour tal, suñu nous voulons il faudrait que nous def attention. mais vous xam nga système il faut que nous def attention. parce que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Et puis le Sénégal doit avoir une stabilité politique, morale, sécuritaire, sanitaire, et sociale et éducative. Donc, vous nous toppee Occident n'importe quoi dans notre pays que derrière des ONG qui poussent

fu ne mu installé fa dara jamono bii di def di inauguration lu yënduwaat affaire yi nga ne day fawe Sénégal Macky Sall dem na tournée. oui mu dikk Sénégalais yi defaat tournée gis Sénégalais yi Sénégalais yi gis ne Macky Sall dina leen nax li mu leen diggoon dafa si dara. yenn Sénégalais ñoo wax loolu. tous les ndax fu mu jaar tey drapeau bu rouge bu mu doon bañ ne moom gëmul loolu. waaye bi événement yi passé yow yuuxu yële ngay wax. partout ba démb hier y' a eu du sang. yow kumpeentun bi Macky Sall fu mu jaar. ñuy ñuy profité sax. fu jaar dër tuuru fu mu fu mu jaar drapeau rouge jàll. Ibrahima nga baal ma ñuy ñuy profité di jaale suñu naatangoo yi nga xam ne malheureusement ca fa nga xam ne moo di bërëbu euh, tasukaay xibaar bi di waa Leeral euh, TV ndeysaan ñoom euh, métit la ñu am ndax ñett ci ñoom ci gannaaw loole Euh, seen bakken rot na ci ab accident bu metti boo xam ne euh, ca tournée ba sax la ñu nemmeeku ne euh, gannaaw loolu ca la am ñu leen koy jàll bu baax di ñaan suñu borom xareen ak jënay firdaws ndax affaire bi daw na yaram Ibrahima Cissé waaw leeral point point net dama dama koy jaale Marème Faye Sall laa koy jaale waaw waaw Marème Faye laa jaare Marème Faye moom laa jaale leeral point net moom leeral point net ma ne comme que ils sont là pour pour Marème Faye Sall et ñoom Marème Faye Sall laa koy. jaaree ñoo fi nekk pour loolu. leeral point net. waaw maa ngi koy jaaree Marème Faye dafa am ay ne y' a des organes yi nga xam ne ils travaillent pour l' état pour le poste. mais yéen amoon amoon ngeen ko fi. amoon ngeen ko merci gannaaw gannaaw. waaw fekk si nga ma merci beaucoup. waaw donc nag Macky Sall nag dafa war a arrêter ses tournées. Mhm. ndax tournée boo demee ba xam ne drapeau rouge rek kay génn contestation deret du tour da nga war a arrêter. carburant bu muy dépensé sunu xaalis. mais loolu accident la. non non non mais loolu mënoo ko teg ci non non non mais hier mën naa la on samay vidéo ay photo yu ñu ma envoyé ay vidéo yu ma envoyé. ay femmes yi nga xam dañu sol t-shirt Macky Sall deret bi sanga leen. mais et puis li ma si gën a métti à Saint-Louis ay nit nekk seen kaw étage au deuxième ne non au troisième mandat les forces de l'ordre ñëw fekk si leen dajji leen jël leen par force.

koloo tëngéej am na accident bi am fii autour à péage bi ma ñëw taxaw mu un de mes cousines je ne sais pas le nom Yalla y yàlla taxaw ba mu jóg on a téléphoné le RP bu CASA quand ça pour pompier parce que son cas était très grave Nous avons dugg ci ambulance normale ambulance médicalisée le waroon dugg ma téléphoné docteur Thiam là ko nous am nga ambulance médicalisée mu amul ambulance médicalisée il a fallu que nous réquisitionner une ambulance médicalisée bu président di am bu en réserve mu jógee géejawaay ñëw pour ñu mën ko pour mën transmettre ce blessé là ba léegi mi ngi en urgence yàlla nag yàlla taxaw. looy dégg foofu. ma pourquoi Macky Sall jël des milliards qu'il ko jënd ay bateaux, ay yachts Des milliards nous, mënoon na jël département bu nek mu un ambulance médicalisée tabax ko hôpital de type 1 mais pour nos noosam euh, nga nous euh, euh, jël ay dem large bi jënd ko ban intérêt amal avion ça je peux dire d'accord parce que. mais je suis d'accord pour moi am avion bu parce que avion bi nga xamante ne pour dem uti ji alal pour ñëw waaye waxuma avion bi nga xam comme ni Macky Sall di def di wër di def tournée def politique loolu moom. mais campagne amul Macky Sall la République. Macky Sall il a le droit d'aller dans d'aller à l'intérieur du pays pour constater les travaux dans sa politique de développement Macky Sall loolu taxu ko jóg. ah déedéet waay Macky Sall jëngal na ba réew bi yëngatu. deful campagne ba ñëpp dawoon dem dans les hôtels. tey moo tax mu dem pour def à la recherche de ses militants mais il se trompe. il y a, il loolu yéen parce que à quelques périodes des des élections ils nañu tout le temps Abdoulaye Wade danaan dem du di xool ji ay. réalisation Abdoulaye Wade réalisation réalisation dit que def que réalisation def C'était dit Abdoulaye le portefeuille nous donc naka Bayam Abdoulaye Wade Bayam bi nga que mais mais vraiment, yo yo tu es dit hein? Tu du son ce mandat de 14 de 2014 à à fitay tey deful dara lépp Abdoulaye Wade moo fi defoon alay président ma Macky Sall xam nga lan la fi def. Hmm. jël nos intérêts nous les Africains. Hmm. créer neuf hommes d'affaires sénégalais marché état yi gëna important mu jox leen ko pour bu ëllëgee bu waccé ñooñu mëna am alal pour mën ki indiwaat au pouvoir lool la fi def jël suñu alal yëpp jox ko tubaab bi lool la fi nekk c'est ça qu'il a fait Macky Sall. te adduna dina ñëw ba ma joxe liste non par non ak sant am marché ñu jox. de tous les nations wasal ñu ko fii rek. non jotagul. fii de exclusivité man jotagul jotagul ma ma ne ko jotagul loolu moom. loolu moom xam nga kenn du jël ay eh, dans une guerre. kenn du teel a génn say armes. du jël say armes déedéet da ngay denc c'est des bombes c'est de bombes atom atomiques ak marché yi ñuy def c'est des bombes atomique jotagul dina jot. kañ lay doon bés bu Karim ñëwee. waaw Karim moom ala kulli day ñëw. Karim dina ñëw. dina ñëw Karim day ñëw. Macky Karim ma ca Qatar dina ñëw Sénégal Macky Sall bu amee ay mbokk laa wax. bu amee xam-xam. te bu amee intelligence xam na ne y a un signal fort sur Karim. si naka. Karim bu yore banque bi gën a fort si àdduna. arab bi dajalee seen xaalis. un milliard de dollars dénk ko ko américain bu soxlee financement Karim Wade moo lebal Européens Européens yi bu ñu soxlee Karim Wade moo lebal Asiatiques yi bu ñu soxlee Karim Wade moo koy legal les grandes puissances Macky Sall la li tëjee sa bopp. dis-moi dafa amul nationalité Qatari yi moom. amul nationalité Qatari. yi mais xam-xamam ak jàngam fils de Abdoulaye Wade rek jeexal na wax. waaw ah c'est un ingénieur financier. masha'allah allah xale xale boobu. Karim Wade. ok Karim Wade bopp la macha allah kooku kooku ñëpp ko soxla li ma naan boo gisee façon naa bëggoon buy raw boo ko bëggee boo amee xaalis sa poche danga koy jënde féetale. non mais man dama déggoon ne temps yi bu avant muy papa ji di ko dugal ci politique bi banque yi mu doon nekk au niveau donc de. Euh, de écoutez de l'Angleterre dafa daan liggéey rek. écoutez mon frère Christian Cissé en Angleterre c'était un ingénieur bi nga xam ne ñooy defar train yi Maroc train rapide yi moo ko Christian est bien placé Karim moo yoroon fond de pouvoir bi yoroon dégg les arabes et autres di leen conseiller pour des bons investissements mooy tey buur bi mu nekkoon kese yi moo conseiller conseil ba nga xam ne mu koy conseil baa muy doxal ku mel noonu nag ba dëgg yàlla kenn du ko sànni waaw ku mel noonu kenn du ko sànni ku mel noonu dañ koy dañ koy seet dañ koy téye parce que njariñu réew mi la waaw wuuteex Macky Sall wuuteex Macky Sall waaw ay mbokkam yépp rek lay jël di joxe ñun toppatoo toppatu réew mi waaw moom il est méchant Marème Faye Sall ma sœur il mooy def la gentil ñu bëgg nax réew bi loolu lañ fi nekk séddoo paacoo réew mi lañ fi nekk li ngay wax nii dafa dangereux. Ah. tëngeej fii ani hôpital bu baax tëngeej amul ambulance médicalisée ñu ngi jël tëngeej bëgg ko tas bëgg ko diviser bëgg ko toroxal tëngeej un ville historique Macky Sall Fuuta boobu muy wax lan la fa def waneen na bandum waneen ko musiba dafa fa dara moo tax waa Fouta génn nañ slogan pour moom. yow yow yow Macky Sall andil na la si sa département bi ñaari pôle des pôles de développement des pole de l' émergence benn pôle jam ñaañu mu ngi nii ne booy peut-être lenn rek la la ñuy war a mën a sax xultu mooy li muy fago phagocyté Tëngéej parce que day dafa dafa dafa désaxé euh, li nga xam ne moom moo di centre d' intérêt bi Rufisque doon dans le département. on a l'impression que tout est en train de, de se déplacer aller vers, vers, hum. aller vers Djamniadio. Et d'autre part également, benen côté li mëna roumanade moy découpage administratif bi nga xamné commencé de ko def de préparer euh, donc pôle bi nga xamné le pôle de la grose parce que faut yépp normalement bu ñu continuer ak boom démographique bi di am teungeuy bi bi continuer département mais ñoñu également bu ñu continuer nonu dañuy par extension il faut commencer di nous avons bëggoon désengorger Dakar Nous avons influencé l'investissement en matière immobilière vers cette zone et on a l'impression que le pari de Macky est en train d'être réussi en faisant de de de euh, de de Lacrose également de de Diamniadio ñaari pôle yu mag si biir département bu war na neex yeen wa Parti démocratique xam nga terrain joxe terrain plan. d'assainissement dafa fa ay route ay route yu baax dafa fa ay école yu baax dafa fa ay lycée yu baax dafa fa ay hôpital yu baax sa ndox da ngay toog ba deux heures matin trois de matin doo mën a nelaw du root ndox pour mën a am ndox mu coupé dama ne Macky sàll day nax boppam mënut a nax réew mi. Diamniadio bii naxaate la Diamniadio am ay tali am na lépp. ma ne Diamniadio amul dara. waaw rien qui est parce que même norme tali ni ko abla Wade doon liggéeyee toppatul waatul foofu toppatul waatul foofu tali yi baaxul tali yi baaxul tali yi baaxul te nous avons besoin am ay tali yu baax Sénégal nous avons besoin am ay école yu parce que l'éducation est capitale pour notre pays. Maurice... mais xoolal fii ça fii. Maurice Gueye gis nga ko léegi. Eh, écoutez Maurice Gueye ça c'est un long projet. Promoville. waaw Promoville bi ñaata tali lañ la tracé. ma ne déglu ma fii nañ c'est pas lui. mais mais mais. ak Ndiawar Touré bi gaañu bi defaandoon loolu. ak ah, équipe bu Ndiawar Touré nañ ko nañ leen ko gërëmee. Promoville. waaw nañ leen ko gërëmee. mais le projet ou daaw dañ daaw projet bu mu déposé pour Tëngéej Tëngéej déposé ko. anamu mi ngi ko naj mi ngi ko naj ba léegi ay milliards ba milliards yi delluwaat. trente milliards. waaw bu delluwaat. opérateur chinois. delluwaat. Macky Sall bëggul tëggee. ñuy nekk fi di xëccoo di xëccul pour Macky Sall ñu nax waa tëngee gëmuñu tëngee. koo si gis mi ngi tabax fii ay cinq étages six étages yi nga xamante ne du valeur de cinq cent millions six cent millions. ana waa inspection d' état. ñooñu la ñan ñoo def xam nañu seen bopp. waaw déedéet waaw xam nañu seen bopp. <laughs> waaw dèjà yi nga xam ne. dañu nekk ay président départemental yorul kenn xamul fi ay maire ay autres di tabax ay ay étages yi nga xamante ni ay bële ay ministre sax ñu ngi fiy tabax ay étages yi nga xamante ni ay 500 millions 600 millions fi da amuñu ci benn amuñu ci ñaar ñu am plusieurs rew bi fan la jëm ñooñu bëgg ñu tënkee ils sont là pour leur propre poche amna kene kenn nga xamante ni compte naa maisons yi nga xam d'une valeur de 500 millions à 600 millions. ñaata maison. six maisons. <laughs> Assane. waa kooku billaahi wallaahi tallaahi barke Cheikh na Sane. Ibrahima kooku gàtt na mu xel. billaahi mais ñooñu ni ñu mën a taxaw fii di ils sont là pour les intérêts. kooku lan la député le. lan la. salaire am mayu ko ko. dégg naa mu naan wala eh, chinois yi fi mu ne indien yi ngàppati ñëw la salaire indien yi chinois mën la jox cinq millions six maisons ak cinq cent millions six cent millions. indien yi fii de Sénégal laa fa xam mu nekk. ñoo xam yaa tudd tur tudd. kenn man tudd ma tur bu ñu nax bu ñu nax Sénégal man dama. ñooñu tey ñooñu balaa muy neex. ñooñu tey bu fekkee ne da da ngay dama di dama la seen bi tuuti rapidement bàyyi bàyyi bàyyi Ibrahima. dama ne waaw dafa mel ni euh, dafa am ah?

Euh, di leen jaale seen confrère yooyu xamante ne ñoo tv ndeysaan waaw euh, te ñu wàññeeku di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yërëm ñun tam ñu di leen jaal abdoulaye fay di bama ñaa wadd le président le président abdoulaye fay mm-hmm. ki xamante ne mooy yor administrateur parti démocratique sénégalais ndeysaan gëm président abdoulaye liggéeyal abdoulaye mm-hmm. yàlla na malaaka yërmande amin amin amin amin da nga bëggoon a wax ak euh, ibrahima cissé waaw son frère ibrahima cissé boobu laa bëgg wax waaw mu ngi lay dégg waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa Ibrahima Seye maa lay a maa ngi lay dolli ziar di la déglu. mais kilifa gi man dama rus quoi dama am gàcce. Hmm. mais damay baalu waa Tëngéej yëpp àq. Hmm. parce que Ibrahima Cissé tout Rufisque c'est a Ibrahima Cissé. Hmm. parce que tey Ibrahima Cissé tey bu toogee foofu tey jii nii wax yi ngay wax foofu noonu tey jii. ak fi suñu parti toll ak fi ñu bëgg dem tey jii. yow kàddu yi nga xamante ne yëg nga fii tey jii. moo tax may baalu tey militant parti démocratique Sénégal yëpp. ak ñi bëgg a Ablaye Wade. maa ngi leen di baalu. ok tey boo toogee si rajo boobu. Mhm. tey nga ne daaw dañaa gëmul parti bi. tey loolu mhm. boo ko waxee dafa mel ni rek nga ne euh, gànnaar lu fa lu fa ëpp doole. nga ñëw taxaw nga ne dégguma dégguma dégguma li nga wax waxaatal. dama ne. Mhm. boo taxawee nga ne daaw dañaa bëggul parti bi. wax dëgg na na ko baax da ngay daaw dañaa gëmul parti bi parce que ni muy doxal ni Macky Sall lay liggéeyal ñii di liggéeyal Macky Sall mooy sa alimar bi la parrainé. alimar bi la parrainé. dina jox cinq cent mille francs par mois. kooku moo gëmul parce que bu gëmulee parti bi dem na comme nga xamante ne mooy Macky Sall. mais ma dellu ma dama may yegale ngir yàlla. Uh-huh, uh-huh. Issa uh-huh. mm-hmm. loo ko mën a waxal man a waxal moom yàllaa ko bind yaru. Mm-hmm. yàllaa ko bind tey yàllaa ko bind du tooñ nit. parce que ñun dama jur doomam sama axulaay taala laa toog tey boo ñëwee taxaw nekk Karim rek moo fa ne Ibrahima Cissé Issa n'est pas comme vous. billaahi doo leen benn te manu leen nekk mais suñu parti bi ñun les jeunes jóg nañ taxaw taxaw teg si suñu bakkan du kenn kenn kenn ku mën a yàq le parti démocratique sénégalais si niveau de part bi ñu am nii du kenn du kenn te jii allah ji daaw dañaa mi nga xamante ne tey lépp lu baax si parti démocratique sénégalais tëngeej moom la Ibrahima Cissé yow ñett ñi topp sa ginnaaw man je te connais xam nga ne man yow yaa ma jiitu si parti bi mais man 2003 ba léegi maa parti bi 17 ans maa ngi parti mais tamit affaire yi tamit li li jour bi ngay duggoon niveau national jour bi ngay duggoon niveau national di saaga Omar Sarr ba Ablaye Wade di leen recevoir pour nga duggoon niveau national man loolu je suis honte de le fait du ma ko def ay saaga du ma dugal foofu ay saaga du ma dugal foofu noonu mais dama ne la allo. Mamadou waaw ñu ngi lay. yow yow la yow la ñuy déglu Ibrahima il faut nga ressaisir. da ngay mën a ñëw ne téye na libéral nga liggéeyal parti démocratique sénégalais ñu ànd liggéey mënoo ko nga dem liggéeyal Ali Mar ak Macky Sall. mais yéen bi yéen yéenay détruire le parti démocratique sénégalais. waaw léegi nag léegi nag waaw waaw Mamadou. Mm-hmm. Euh, c'est c'est dommage émi émission bi euh, bu amoon jàkkaarloo euh, ak ka ka ngay waxal fa la gën a neexee. mais comme que da ngay wax ba pare ñu tontu la mais leen la maa la koy xamal. Mm-hmm. yow da nga ne tu es jeune.

mais yow ku ñëw nga top si ginnaawam di lool nak du dula du ko la yow tu ne plus tu tu ne fais plus partie de l'UJTL UJTL bo amé 40 ans bokkatoo fa te yow dépassé nga 40 ans bon kon yow ban jeune ngay waxal demal demal demal ñafé ji secrétaire général ak bureau bureau mag ñi te nga bayyi voilà c'est à cause de vous tey jii bu Sonko demee ba am marché au niveau de la jeunesse yéen ñi nekkul ci jeunesse ya len liggéeyul sen liguey ah, parce que ou ula ngeen dem top toji jeunesse bi liguey liguey comme ñun luñu def jeunesse bi ba introniser len tek len mais vous êtes là top nit jumaamu nit pour ut loo leen def sen poche rek la donc bo amé leçon de morale nga def ko sa poche da nga xol sa bop nga seet sa bop da nga gis sa bop ndax bo gisee sa bop da nga xamné nit ku bon nga wasalaam ci yow. wa déedéet ibrahim nañu rafetal cadeau euh, yi. Mhm. 88 lay doon 628 013 euh, ci li ñu déssé ci euh, waxtu yi 7 euh, minutes normalement ngeen dougal seen laaj wala jàkkaarloo ak Ibrahima Cissé alors ñu ngi ci won ci li nga xamné mom modi moo di bi ci li nga xamné dañ nga japp ne Macky Sall président de la République def ko sax déjà à Rufisque ci ay ak ay réalisation yo xamné té man ma limal le pôle yi nga xamné ne gis nañu né day taral département bu Tëngéej bu dé ne sax dañu wara a wut benn link bo xamné y a wax projet carré d'or euh, bi qui euh, euh, ki nga le maire Daouda avec son équipe dont Dieu m'a piloté mais malheureusement tout. voilà xam nga carré d'or bi Daouda Niang moko piloté moko tek teg te carré d'or wa deug dëgg son son ami Albenoy. Alben avec Mara et tout le monde. Ah, mais Mara après après kenn gisatu ko. non mais qu'est-ce peut-être li qu'est di. mais mais dugal nañu dem na ce que tu veux mais aussi au niveau du nord. d'accord te yëpp dajul nañu au niveau du carré d'or mais cardo bi bu bëmëx nañu bëmëx nañu Macky Sall jël loxom taxi té goro Macky Sall fi la dëkk Omer ki may ki may Macky Sall Marème Faye Sall tëngëj la dëkk bu fekkee ne moom mi ngi oote tëngëj di politique tëngëj di laaj intérêt tëngëj te muy nekk xaritu daaw ah, ah, dañaar benn bakkan sii sax neuf lañ ñoom ñaar bu xaritu boobu dëggul woon kon kaara dooru Macky Sall dina accorder

parce que il y' a de grands il y' a de grandes pontes yo xamna ñofi nek pour pour. pour xam nga xam nga pour le coordinateur Omar Gueye. xam nga déglu ma fii déglu ma fii PDS nga jël euh, Souleymane Ndoye. dégg nga élection yi di ñew travail dans le département élection yi di ñew pour Macky Sall. élection yi di ñëw. Uh-huh. y aura une coalition de l'opposition. des déedéet waaye kan ak kan ay nar a ànd ah, coalition opposition dina

sauf sauf di wax di wax diw. di wax diw mooy kan. waaw ñii xam-xam nañ man nag j'ai dit aux personnes. tous les man musuma gis ak. tous les Karim sax li ngay wax ne ma ne tous les Karim sax. ils ont voté pour Sonko 88 628 waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar di la nuyu foo ñuy woowee. Euh, waaw man la Moussa Pouy d' abord. man la man la attends man la Moussa Pouy sëñ bi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. foo ñuy woowee foo ñuy woowee dàngu voilà kon Ibrahima Cissé nga bëgg a waxal mu ngi lay déglu yokkal volume parce que dégguma yokkal volume dégguma dara waaw ah, non dégg dégguñu waxaatal non faiblement ah. yëkkatil sa baat yëkkatil sa baat dañu mën a dégg bu baal ñu waaw nga baal ñu waaw baax na waaw waaw ñu ngi lay dégg waaw waaw mu ngi lay dégg waaw yi ak li fekk waaw dina ñu rafetal terme yi ndaxte rajo lañ nekk ay nawle lañu am donc ci. xam nga eh, Moussa. man Jokalante laa man lébu la moom man kama sabaj ma sabaj la. Ah, déet waay non ma man loolu duma ko man képp laa jox ñëpp laa jox cër. moom xalaatam la. non non mais xalaat mais xalaat bi am na ay moo yu mu utiliser. envers ma personne te ma ko fouf lol la ko delo du moromam. nañ yegali voilà. donc euh war euh euh, euh, euh warna a gëna bax am amna ay problème de sécurité té lolou 88 628 0013 asalaamaaleykum. alaykoum salaam. waaw sëñ bi noo tudd ak fo ñuy wowe maa ngi ñëwaat. ah Ibrahim yaa dellu Ibrahima Cissé. Mhm. Ibrahima wuyul. waaw maa ngi lay déglu. waaye Ibrahima. waaw. Mhm. waaw incha allah dégg naa la dégg naa la et puis su communication bi ba dëgg yàlla leerul dara nag maa ngi maa ngi ñu ngi jéem a dégg mais difficilement. xaw appareil bi problème de micro mais difficilement voilà donc euh, li nga wax dégg naa rafetal wax donc maa ngi siy mais nag euh, man ka xobaj ma xobaj la waaw la alors Ibrahim man dama am problème ak ak euh, propos yi ci ci toppatoo bi ñu a toppatoo parce que yéen carré bi la état bu ne par exemple yéen ay opposant ngeen te yow yaa ngi ko wax yow yéen yéen Abdoulaye Wade mo ne voté len ñep suuf diw ak diw la majeure partie des karimistes du Sénégal ils sont plus de 3 millions. donc yow ci ils vote bobu vote vous ils ont voté pour Sonko. non de vote c'est pas c'est pas de c'est non le de vote. à libérer la personne pour nous voter ça fait deux. ah bu la Abdoulaye Wade ça veut dire ça veut dire que cela veut dire parce que kuy les ak Macky Sall de combine en Macky Sall kooku duñ ko jox suñu carte ni ni wa PDS. Amad nga gan 88 628 0013 asalaamaaleykum daw dawna dina ñëwaat 88 lay doon 628 0013 ci li nga c'est ne. moo ñetti simili. dama Karim ils sont plus de 3 millions te ils ont voté pour son Sonko. loolu de information la. lu leer élection yi bi paase. 88 628 0013 salaamaaleykum. waaw kooku la Moussa. waaw Baye Ma Ndiaye bu ñu ko def bu ñu ko def ab tiisante ngir yàlla nga baal ma dégg nga. non tiisante wu ma kay kooku dama koy wax rek. ne la ñun bi ñu duggee UGTL ñun moom ñun ni ñu duggee si parti bi moom duggeewul noonu si parti bi ñun congrès lañ duggee dama koy xamal loolu rek bi ñu duggee congrès ñun président Abdoulaye Wade moo ñu téye woon si

am nañu droit def ay réaction mais kenn ku nekk rek ñu def de sorte que mu rafet dalé ko ci mom ci ñun ak yeen xam nga oh, man waa tëngéej man lay waxal kenn musuma dégg ma ŋàññ nit surtout daw dañu té waxna fi ci si demande daaw dañaa damaa tooñ waxal li nga nekkul ci man man lol la ko tontu tay

au niveau national Vous voulez reconnaître comme le principal leader de l'opposition Sonko euh, principal leader de l'opposition c'est ah, pas mon troisième mais Sonko deuxième pardon c'est des élections ah, ah, élection des élections invalides parce que l'élection, il y a un